leen di gërëm di leen sant di leen remercier et di rafetlu seen teewaay donc lu ñu tax ñëw fii tey may présenter leen lu nga xamante ne mooy IRAS initiative de réflexion et d'action socialiste lu ko tax a jox nag moo dina kon lu ma leen ko waxee léegi ci ci tubaab euh, ci nasaraan mooy poussé par pousser direction parti bi ñu dem si réflexion profonde pour que partie bi amaat jëmm pour que parti bi amaat euh, euh, reconnaissance bu nga xamante ne image bu nga xamante ne moom la ñu moom la moom la sénégalais yi xamoon ci moom les années quatre-vingt ba des années quatre-vingt-dix ci loolu nag ci tànk boobu lañ taxaw mooy lan mooy dina lan demander à la direction du parti ku ñu rajeunir le Parti laaj direction du parti socialiste ñu dem à un congrès extraordinaire parce que texte yi dañ ko prévoir laaj la direction du parti socialiste que ñu réfléchir sur les retrouvailles de la famille socialiste de gauche de manière générale donc ci tënk loolu nga xamante ne loolu moo loolu moo waral suñu tànk loolu moo waral initiative bi pour ñu ñu ñu ñu inviter population bi inviter camarades yi inviter l'opinion nationale et internationale xamal leen lu mel nii juddoo na ci parsolis te incha allah ay cadre la des cadres politiques et des cadres intellectuels ñoo ko sës ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko encadré li waral li waral euh, mbir mi mooy ba ñu xamee ne seetlu nañ ne suñu parti parti socialiste toll na diir yu bëri yoo xam ne ñu ngi constaté ne mi ngi mi mi ngi sonn di am ay ay difficulté ci ay élection di am ay difficulté ci rang ba mu amoon dayo ba mu amoon mu ngi koy wàcce tamit loolu li ko waral di ay recul yu bëree bëri bëri dellu ginnaaw yu bëri te yàgg yoo xam ne ñu ngi koy dajale di ko dajale ba mu yegg ci benn cappaandaw ga ba mu fa yeggee ñun ñi nga xam ne nii groupe lañ boo xam ne ay cadre parti bi lañu bokk xalaat àndoo ñëpp ne xëy na buñ deful dara dellu ginnaaw bi dellu ginnaaw nii day gën a day gën a day gën a tar te bu taree du jëriñ du jëriñ parti bi donc sentir nañ suñu bopp responsabilité boo xam ne ñu war a jóg def dara lañu ñu mun a def te la ñuy def doon ci biir parti bi parce que génnuñ parti bi rebelle wuñu contesté wuñu defuñ dara li ñu bëgg mooy pousse nit ñi bañ toog waxtaan dajale ñëpp ñi nga xam ne nii gis seetlu nañ comme ñun ne ñi ngi dellu ginnaaw ñu toog waxtaan analyser dellu ginnaaw boobu lu ko waral lan la naka la ñuy def ba créer beneen dynamique boo xam ne dynamique contraire la pour freiner ko déjà construire waat delloowaat dayoo bi parti bi amoon ñu delloowaat ko fa mu ne woon loolooy mbébétu lii nii ñu ñu ñu ñu ñu sos sose ko ñu ay en tant que socialiste sose ko it ci biir parti bi pour muy leer génnuñ parti dingatuñ parti waxatu waxuñu waxuñ lu ñaaw defuñ ko xalaatuñ ko waaye li ñu bëgg mooy nañ taxaw te gannaaw structure parti bi raison yu bëri tax nañ ba nga xam ne nee nañ mënatuñ leen a dajale parce que boo waxee ne Covid baa tax ba mënatuñoo réunir bu njëkk ba taxi li ñu wax mooy chaque weer war nañoo dajale bureau politique weer la wala ñeenti ay nit na bu ñu seqee politique seq ndaje boobu te mënuñoo toog waxtaan kenn amul foo ko waxee pour ñun yu mel nii nga mun a def pour fexe ba nit ñi nag toog taxaw ñu xool nu ñuy def ci biir parti bi mun koo pencoo xalaat def yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am ñu xool lan moo ko waral pousse waxtaan bi ci biir et puis jàll ci leneen trouver ay solution ensemble ñun ci suñu biir. IRA du mouvement bu bokkul ci initiative bu parti bi maanaam IRA initiative de réflexion li ñuy def mooy pour pousse waa parti bi ñu toog waxtaan waaye xalaatuñu ñun. bokk ci beneen mouvement bu dul parti socialiste wala bokk ci beneen organisation IRA du organisation bu génn parti bi initiative la bu ponctuelle la ñuy régler bu jeexee jeex nañu ñu delluwaat ci suñu parti delluwaat suñu IRA mais li ñu bëgg mooy pousse nit ñi ñu toog waxtaan. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Ça, c'est une initiative ponctuelle, c'est pas une organisation définie avec un agenda dans le temps.